par exemple du question amul question politique. Euh, waaw boo ko waxee jëm euh, ko Dakar dafa nekk benn gox bi nga xamante ni. xam nga Dakar Dakar Dakar euh, nekk la bokk. Hmm. mais lu dal opposition bi dal Sénégal yi Khalifa moo leen ko yóbbee. c'est naka mais 2017 ñun bi ñuy def suñu liste manque wattu gi nga xamante ni Sénégal yëpp dañoo am suñu yaakaar. nii liste bii nii ñu ñëpp moom la ñuy woteel pour que ñun ñu am majorité ensemble national taxawal gouvernement Khalifa Sall boobu mi ngi si kaso moo taxaw lànk ni loolu du fa amee Abdoulaye Wade du ko jiite tas boobu noonu ànd ak Idriss Seck tey bu ñu àndoon tey jii Khalifa Sall jiite dakaar ak li PDS am ñun ñu amoon kon Khalifa Sall dafay nekk député ndax Dakar dañuy gagné Dakar gagné Thiès gagné Touba gagné feneen ak feneen am majorité ensemble national Karim Wade mën a ñibbi si Khalifa Sall kon su boobaa dugg si kaso bi. ñoom ñëpp ñu ma leen fexe ñu mbokk si élection présidentielle ban fi jële Macky Sall mais Khalifa Sall moo taxaw lànk ni Ablaye Wade du ko jiite ba coalition bi tas bi nga xamante ni jàpp nañ ko man mii di wax ak yow en tant que vice président commission de loi assemblée nationale man maa doon fekk li nga xamante mooy mooy bi ñu koy euh, war a tëj procureur de la république ministre de la justice li indi woon assemblée nationale pour que ñu dindi malaanu mm-hmm. kiraayam man maa fa mm-hmm. nekkoon di ko défendre ndax Khalifa Sall amu fa woon député te ñi mu ànd ku dul Cheikh Bamba Dièye di ko défendre ñu di ko défendre di ko jàppale lu nekk ñu dégg ko ñun ñi nga xamante ni sëñ bi ay sëtu bàmbalan tax ñun xalifa tax na ñu saaga ñu ci assemblée nationale ngir défendre bi ñu ko défendre te antoonu ñun ci li ci ci li nga xam mooy élection yi mais Abdoulaye Wade mii li ma gëm mooy nin tëje woon Karim Wade te du yoon noonu leen ko tëjee kon def leen ko combat principe mais kooku bi ngi debee ba yàlla dogal mu génn ci kaso bi lan moo gënoon rafet mooy ñi nga xam ñoo ko doon xeexal assemblée mu yëkkati sax téléphone bu mënta ñëw woo président groupe parlementaire bi jaajëfal leen sant leen dem seeti président Abdoulaye Wade dem seeti président Pape Diop. Hmm. mais loolu lépp dara defu ko kooku nag est-ce que yow da nga jàpp ko ni deful benn tànk daal ngir dara defu ko Pape Diop wala. darul hmm. dama ba fi may wax yow laa la wax. li ñu ko defaloon lebal ko si tranga ak lu bon li ñu faye woon amul lenn loo xamante ni Khalifa Sall def na ko yëkkati benn jéego pour que dem seeti président Ablaye Wade jaajëfal ko dem seeti président Pape Diop wala mu woo président groupe parlementaire bi jàll na mhm. yow est-ce que ñun dañuy dox ba nga xamal la ñu daloon 2017 ba tax amuñu maturité danoon toppaasi loo xam ne xamuñu fu jëm di combattre pour lan pour intérêt benn nit duñu ko def tey duñu ko def ëllëg en benn yéen dama ni ñun la ñor la ñu ñor mooy soxlawuñ personne li ñu soxla mooy réew mi Sénégal bi nga xamante ne ñu ñëpp ñoo ko bokk intérêt boobu la ñuy xool mais xooluñu intérêt Khalifa Sall pour que buñ ko dindee du nekk maire wala dana nekk maire ñun loolu suñu yoon négocie lu suñu yoon nekk daal mooy loi bu ko mayee te muy jaar yoon te Sénégal yi d'accord si d'accord nañ si bu fekkente ne loi bi mayu ko ko Sénégal d'accord nañ si d'accord nañ si mais nu xeexuñu pour que rek lii dañ ko war a bàyyi nii pour que Khalifa Sall continue nekk maire pourquoi loolu du yoon voilà